هنيئا لابراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله لافضل ارض حل افضل مرسل بافضل يوم فاستبان كماله قد اختير من كل العوالم اصله كما اختير واختيرت لذاك فعاله صلى الله عليه وسلم بوكي نيغي سانت di julli si yonent sallallahu alayhi wasallam sallam di ndokkeel suñu sëriñ Mawlaaya Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ci feeñ ak rabiul awal bi di ndokkeel mboolemi toppam di ndokkeel mboolem xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam waaye di ndokkeel mbindeef bi yëpp bil itlaaq ci ñëw ak ki nga xam ne yiw la ñeel leen yërmande la ñeel leen yàlla wax na ci alquran ne wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin ñu ngi julli ci moom di ñaan yàlla mu tëbbuñu ci ay mayam ak leeram wa xaasatan ci weer wu tedd wi ñu ñëw bëgg leen a firil qasida mawlaaya cheikh ibrahima ñas radiallahu anhu bi nga xam ne saa yu weer wi teru woon muy ndokkale boppam ci way boo xamante ni ñaari bayt yi jiitu taaliba baay yépp xam nañ ko waaye ñu firi qasida bi lépp ba mu jeex nit ñi mën cee jëriñu waaye tamit xëy na mu wàllaale leen moom ibrahim ci cofeelam ak mbëggeelam ci yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam leen dafa ne xani an maa ngi ndokkeel li Ibrahima ñeel Ibrahima maanaam ñeel ma man laaxa feeñ na xilaaluhu weeram munoon na wax ne laaxa xilaalu rasulillahi sallallahu alayhi ci beneen maanaa boo xam ne wasna bi dina baax. waaye mu ne laaxa feeñ na hilaaluhu weeram moom kon weeru juddu yenent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi daf ko jël moomal ko boppam te ko am fulla it noonu ngay def waaye ala ayati xaal day tegtalee ay mbir yoo xamante ne mbir ak maqaama la nit dina wax dara idaafa ko ci boppam fekk ay dëkkandoom sax duñ ko yëg waxuma la ak àdduna bi yëpp waaye bu fekkee li ngay wax ne da nga ci am iznu booba àdduna bi yëpp a koy yëg moo tax ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam toogee woon ak saxaaba yi naan leen di ngeen moom Kisra di ngeen moom euh, nguur yu gën a sori yu gën a woon a puissant muy Rome ak waa Perse yeeg yëpp boobu izn la amoon izn boobu tamit moom la bàyyi amoon ci kosi ba mu nekkee si as néegu néeg su tuuti soosu xat lool moo ne leen xam leen ne lii ngeen nekk nii fépp fu lislaam ak tariqa bi egg dana fa egg waaye jamono boobu noonu waa ji nekkutoon waaja du ko wax wala bu ko waxee ñi duñ ko gëm waye ala ayati hal tay ji ñun ñep gis nañ fi faydu bi tegg li mawla Cheikh Abdallahi jadi wax mu ne umumul afaq mom amna waye umumul afrad lañu gisagut manam faydu bi mom matale na gox aduna bi yëpp mu ne waye nak dafa dess benen umum ñu ne ko moy ban moy umumul afrad mu ne moy nit ko gis rek mu nekk talib bay te bayna dehal dahal nañu lool parce que mu ngi wax ci mahdi yu Ñas dafa ne foofu hunaalika ammal faydu la shakka lan tara siwa aarifin billahi wa sharcu mutqinu aw mutqanu mu ne foofu noonu ci mahdi yi bu ñëwee foofu ngay gisee fayd bi motal mbooleem mbindeef yi mu ne laa shakka amul sikki ne laa taraa gis si aarifin billahi ku dut aarif billah te jamono jooju noonu tamit wa charu mutqanu day fekk ne sharia yàlla bi moom lu ñu ñoŋal la comme li mu waxoon fële ne le xasul hmm, uluman arbaan za saliki Baay Ñas ne hani an maa ngi li ibrahima ibrahima laaxa feeñ na hilaaluhu weeram hilaalun weer la goo xam ne badaa leer na feeñ na linnaazirina ñeel ñiy xool di gis jamaaluhu taaram ak rafetaayam maanaam képp koo xamante ne am nga ay bët yu wér nga mën a gis xool xàmmee ne di nga gis ne weer wii ni moo dàkk ci weer yi ndax ki dàkk ci mbindeef bi moo ci feeñ bàyyi nes na hilaalu rabiin lii mooy weeru rabiil awal te rabia boo xoolee arab yi rabia daf leen a yàgg neex ndax ci la jur gi di ñor ci la jur gi yëpp di di ñor ñi bayoon ci la ñuy góob moo tax tegtal la pour wane ne li yenent yi yëpp doon doon jëmbët jiitu yenent bi sallallahu alayhi wa ñoom ñëpp liñ doon jëmbët moo ngi doog a meññ muy meññeefu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi nag jiina ah, yenent bi jiina lan mooy meññetam ak lan la ñu góob ci jiwam googu noonu yàlla bu ñu ëmp bi jaahi rasulillah bàyyi na hilaalu rabiin hilaal rabia ci moom jaa a dikk na muhammadun kañu sant muy muhammad mu ne fa tamma cala matee lanaa ñel ñu albushra mooy mbégte wa amma mu matale tamit nawaaluhu ay mayam moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne li afdali ardin na li afdali ardin suuf si gën ci suuf si ndax yonent bi sallallahu alayhi mu ngi gane àdduna makka makka moo gën ci beneen réew bu dut makka lu des jumaa yenentu bi sallallahu alayhi wasallam ak fi yenentu bi tëdd ci madina donte ne borom xam-xam ñu ngi ciy wute waaye Baye daan na wax ne ñaar ñuy xëccoo xoolal ki féete woo yenentu bi xamal ne moo gën moo tax li afdali ardin ñeel suuf si gën ci suuf si muy Makka xalla fa la feeñee mursalin ki gën ci yenent yi muy yenentu bi sallallahu alayhi wasallam fii nag bu ñu ne yenentu sallallahu alayhi wasallam moo gën ci mbindeef yi du wut comparaison parce que boo nee diw moo gën diw rek comparaison am na donte ne gënal nga waaye fii nii si loolu rek la ñu mën a wax bu ñu nee yàlla xadiim la loolu rek la ñu mën a wax mooy yàlla xadiim la yàggam gi dafa yàgg parce que baatu yàgg la am amuñ leneen waaye yàgg sax dafa am tàmbali kon bu ñu ne yonent bi moo gën firi wut ne dañ dañ kaa comparé ak ñi des après yonent bi génn gën ماغي دون جيمونتو تي وي يننتو صلى الله عليه وسلم من متى يجمع الاقوام فيه تسابقوا هو الكنز ان رامت اناس تزينا تركب فيه الجهل من قاس واحدة بطاها رسول الله بالويل قدنا فطاها امام من سواه مؤمم فمن قاس ماموما بمن ام ارعنا ماني يننتو صلى الله عليه وسلم سايو غايو باخي دجي نجكنتي تي يالا تي موم لا نجكنتي دي موم بوكو تي كورسو بي da ngay jiitu ci moom raw ci moom raw ci yàlla ba faw kon képp kuy dëppale ma ne yenent bi sallallahu wasallam ak keneen wala leneen ma ne kooku noonu euh, ku jege ku jege mbugalab yàlla la yàlla ci yàlla musal ndax yenent bi sallallahu alayhi moom mooy imaam keneen ku dul moom maamun nga ak koo munti doon nag bàyyi nas hmm, feeñ na afdalu mursalin ki gën ci yenent yi bi afdali yawmin ci bés bi gën a màgg ci bés yi mooy bésu altine tamit ak bésu fukki fan ak ñaar ci rabiil awal mu ne fastabaana feeñ na kamaaluhu matam moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qad ixtiira tànneef nañ min kulli alawaalimi mbooleem mbindee fii ñëpp asluhu xeetam moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam li mu bëgg a wax rek mooy banu hashim ñoom ñoo gën ci xeeti yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ana xiyaarun min xiyaarin min xiyaar man tànneef la gu ko ci tanef gu ko ci tanef kon xeetu yen famille wu yenentu sallallahu alayhi wasallam mooy baniwu hashim ñom ñoo gën ci xeti buñ fa jugee tamit quraysh ñom ñoo gën ci xeti ila bakkar ak muy egg ci ti yàlla adama xam nga Baye Niass radiyallahu anhu bo démé ci laamiya Baye mu ngi wax naan qad ikhtara rabbuna adaman wa ixtaara shiisa alwasiya hawil maali thumma idrisa بعد hada لهذا قد سما sama min النبي من الفضالي ثم نوحا ثم الخليل وإبرا وإسماعيل فهو فهو الذبيح زين الرجال ثم أدنان بعد ثم معدا ونزارا أحسن بسلك اللآل ومضر نجله وإلياس مع مدركة مع حزيمة الأبطال هذا كنانة النضر يمني مالكا أصل فهر صافي الخصال بني جيخ jeex yenent bi sala Baay Ñas radiyallahu anhu tudd fa يننت yenent الله عليه وسلم yàlla mom mo len tan baye ko ci ñu lap baye ko ci ñu lap ba egg ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam motax tax Baay Ñas radiyallahu anhu mu ne qad ixtiira tànneef nañ min kulli alawalim ci xet yeb moy ci mindef bi yeb asluhu cosaanam mom yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam kam ikhtira nak ni ñu ko tanne mom yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam batay ci bir mbindeefi mu ne waxtiira nañ tamit li daaka ci lolu fi'aluhu ay jëfam mom yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam jëfam mo gën jëfu keneen lépp lu yenent bi def moo gën a kawe lu keneen def ak nu mu munti doon bàyyi nas na muhammadun muhammad muxtaarun ku ñu tànn la def ko yenent wa aadamun te booba teynatun aadama moo ngi nekk moo ngi nekk ban maanaam yenent bi sallallahu alayhi wasallam tànn nañ ko def ko yenent mu xam ne yenent la te booba aadama mu ngi nekk ban nekk ci diggante ban ak ndox sàkk guñ ko bàyyi nas ne muhammadun yenent bi yawmal baathi bisab dekki gi raaqa dana kawe dana raw xisaaluhu ngëneelam maanaam ngëneelam moom rawam gi mu raw ci mbindeef bi yëpp dana fës foofu noonu fës bu jéggi dayo bàyyi na muhammadun yenent bi nuurul xaqi nuurul xalqi moom mooy leer ak mbindeef bi yëpp wa huwa muhammadun te moom ku ñu sant la bàyyi nee na muhammadu nuurul xalqi yenent bi mooy leer ak mbindeef bi te yàlla wax ne allahu nuuru samawaati wal ard allahu mubtada la nuuru di xabar nuuru di mudaaf assamawatu l ardi di mudafa ilay kon bu fekkee yàlla nee na man maay leeru mbinde leeru asamaan ak suuf bàyyi nas ne yenent bi mooy leeru mbindeef bi kon xam nañ ne yenent bi melogu bir la ci leeru yàlla subhaanahu wa taala bàyyi nas ne muhammadu yenent bi nuurul xalqi mooy leeru mbindeef bi wa huwa naka moom tamit muhammadun ku ñu màggal la waaye tamit azimun ku ñu kawel la ku kawe la azimul xulqi ku kawe min ku kawe jikko la ku kawe jikko la kawe tamit ni ko yàlla bindee mune ne tamma mot na jalaaluhu màggam moom yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam Baay na nekk ci moom salaatullahi julle bi yàlla summa topp salaamuhu assalmalam mu ne yazulu na deñ azaabun mooy mbugal aana bi nga xam ne jot na min bàyyeekoo ci yow zawaluhu as dañam maanaam mbugal gi nga xamante ne moom la ci jamono bu nekk mo xam mbugaluk zahir la wala mbugaluk batin la yeb mu ne jot na ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam pour mu dindi mbugal gogo non ak tiis yooyu noonu mu ne alayhi na nek ci yow salatu salaatullahi yow yenent bi sallallahu alayhi wasallam thumma salamuhu top salmalam mu ne yutimmu na matal li barhama alxaqiri barhama mii nga xam ne hada qaalahu alcheikh min baabi tawaadui maanaam Baay Ñas dafa wax lii pour wàccel boppam rek barhama bi nga xam ne alxaqiri mooy ki nga xam ne ku suufe la ku doyadi la wisaaluhu jokkoom maanaam yutimmu na nga motalal li barhama ñeel barhama wisaaluhu jokkoom ci yow bàyyi ne alayhi yàlla na ci moom salaatullahi jullek yàlla thumma salaamuhu topp salmalam mu ne yabiidu yàlla na halku yàlla na perte qitaalu aduwi diini xeex ak ki nga xamante ni moom mooy noon ak lislaam noon ak diine min ko gubàyyeekoo ci yow maanaam képp koo xamante day xeex ak diine xeexam googu noonu yàlla ko nax saayal yàlla ko def loo xam du am benn jeexital ci ñun mu alayhi na nekk ci moom salaatullahi julleeb yàlla summa salaamuhu topp sëlmalam yakunu yàlla na nekk aduwi wala yakunu yàlla na nekk wabaalu fepperlu aduwi sama sama noon shudda mu doon loo xam ne dañ kaa fànkee min ka bàyyeekoo ci yow maanaam yàlla na nga ma fegal yàlla na nga ma fenkal petterlu sama noon maanaam noon boo xamante ni ku petterlu la mu ne alayhi na nekk ci moom salaatullahi summa salaamuhu julleeg yàlla topp salmalam mata laaxa jamono ju feeñee min fawqi samaay ci kaw asamaani hilaaluhu weeram bii di rabiil awal yàlla na yàlla di julli si yenentu bi sallallahu alayhi wasallam saa yu rabiil awal tàmbalee ba keloog muy ñëwaat sallallahu alayhi wasallam bàyyi nas ne alayhi yàlla na nekk ci moom salaatullahi summa salaamuhu julleeg yàlla ak salmalam bihaa ci loolu de xussisa ci lañu xaasale wala bihaa ci julli boobu xussisa na nga xaasal al asxaabu saxaaba yi turran mboolem seen wa aluhu ak waa këram lii mooy qasida bi bàyyi di wax hani an li ibrahim bu ñu xoolee qasida bi bàyyi ñas na ci ngëneelu yonentu bi sallallahu alayhi wasallam wane na am ak solo julli yonentu bi sallallahu alayhi wasallam wane na ci ne tawassul ci yonentu bi sallallahu alayhi wasallam day dindi mbugal yi day dindi problème yi day musal nit ci ay noonam yoo xam ne xam na leen ak yoo xam ne xamuñ bu ñuy yàlla di defal tawfiq ñuy defaat dars di nafaraat mbindëp mag ñi nga xamante ni dañoo liggéeyal yenent bi sallallahu alayhi wasallam sonn ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam wa xaasatan ki nga xam ne moom mooy xalifatom di waarisom di mawlaaya Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu yàlla mun nañoo yokk mbëggeel mun nañoo yokk dëggu ci yenentu bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nañ yàlla may ñu bëgg ko ba yegg ne ñoo di mom yàlla nañ yàlla may ñu bëgg ko ba di ko gis zaahir ak ci baatin yëpp bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa in uridu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum